Albert nuyu nañ la. fay naa leen. Euh, ñu ngi lay félicité bu baax d' abord avant dara bon qu' est ce que ça nga remporté li nga xam ne moom mooy couronne Miss Sénégal 2018 loo xam ne bokkoon nga ko ak say naaw la biñ la waxee yow yaa gagné ñu nga ko dundee lool. Euh, avant tout merci beaucoup de me féliciter je vous à tous euh, d'être venus me faire cette interview euh, ça fait très plaisir d'être Miss Sénégal. loolu dama ka yàgg a bëgg parce que depuis toute petite euh, j'ai toujours rêvé d'être une ambassadrice de ma région et aussi de mon pays donc euh, comme que sama rêve aujourd'hui réalise dañ ko réaliser voilà donc euh, ça va je suis très contente et émue <laughs> aussi. mën naa ne c'est rare ñu gis Miss mu am teint noir ni yow ñu jël la nga am teint noir macha allah toute belle nan nga gisee loolu tamit. ah thé noir bi <laughs> amul lu dakk thé noir de. Hmm. thé noir moo ko man de en plus de ça Casamance laa dégg thé noir laa xam y a pas mieux que la beauté naturelle man je suis naturelle duma toog ba may dépigmenté wu genre yooyu parce que c'est pas bon pour la peau thé naturel moo dakk. waaye moo dakk waaw. est-ce que le fait que ñu tànn la nga nekk Miss ni du indi benn changement ci sa vie. non non je serai toujours la même la même duma changer dara. C'est toujours la même Alberta Diatta. Hmm. Rien ne va changer. Mais est-ce que Alberta am nga ay projet Oui, effectivement am naa deux projets yi ma bëgg a réaliser euh, premièrement euh, j'aimerais bien aider les enfants de la rue parce que selon moi un enfant n'a pas sa place dans la rue. Mm-hmm. Un enfant a besoin d'aller à l'école pour apprendre et de réussir, avoir une vie meilleure. Aussi lutter contre la dépigmentation parce que voilà, oui, il n'y a pas meilleur que la beauté naturelle. y n'y a pas meilleur que la femme africaine, la femme noire. Donc, euh, je pense que 85% des femmes ont dépigmenté leur beau temps noir pour être blanche, alors que ce n'est pas bien. je suis naturelle, je suis très belle comme ça et je me sens à l'aise, oui, bien sûr. <laughs> Donc, euh, moi, j'aimerais bien lutter contre la dépigmentation. donc ban appel ngay lancé politique euh, élection yaa ngi ni di jege si gis nañ dëkk bi barina coow bari na bruit ban appel ngay lancé si loolu en tant que Miss Sénégal 2018. eh bien <laughs> affaire politique moom wax ma ci dara parce que bëgguma ci dugg affaire genre yooyu noonu mais bon ah en tout cas le meilleur gagnera. que le meilleur la paix tamit rek Sénégal. que la paix au Sénégal aussi en Casamance. lan ngay wax waa Casamance yi nga xam ne ñoo nekkoon ci sa ginnaaw. ah maa ngi leen di remercier ñoom ñëpp parce que tey su ma egsee fii nii ñoom ñoo tax ñoom ñoo ma dimbale ñoo nekkoon ak man dans les mauvais moments et les meilleurs moments donc euh, duma leen mës a fàtte maa ngi leen di remercier ñoom ñëpp. kon sa dernier mot. merci merci à tout le monde. Euh, particulièrement ak Afros sama famille sama yaay sama papa ñëpp ñëpp ñëpp maa ngi nuyu ñëpp di remercier Amina Badiane nga xamante ne c'est une belle et brave femme moom moo organisé Miss Sénégal bii nii te aussi kenn jàppalewu ko kenn jàppalewu ko moom moo génnee xaalisom di def ay dépenses yi genre et tout donc euh, maa ngi lancé aussi appel aux autorités nañ ko dimbale comme ça voilà mu continuer parce que ki nga xamante ne dafa jógee feneen dellu si ba si kii euh, euh, fu mu dëkk ñëw investir foofu war nañ ko dimbale jàppale ko si ay dépenses Miss Sénégal parce que vraiment c'est une brave femme donc euh, la félicite vraiment. merci beaucoup en tout cas félicitations. merci beaucoup. Allez,